il a parlé ouf il a dit. du moi, Sénégal mooy ci yeneen ci yeneen jamono jamono du fi am. Ah. fan la ko teg. fan la ko avoir une majorité. à l'assemblée à l'assemblée nationale Nous muy amé majorité à l'assemblée nationale. lu mu wax reddition des comptes des tàmbali cette semaine. waaw. on va vers des arrestations cette semaine et la semaine prochaine les positions n'aura pas le temps de battre campagne dañuy nekk diggante jaabante tribunal seeni kër Hmm. ça c'est du populisme. Ah, c'est du populisme. Ah. population bi par exemple par exemple pour la population sénégalaise Adama Fall dafa détourner au Sénégal. Ah, exemple laa voilà c'est-à-dire c'est-à-dire dans la conscience collective. Mhm. les anciens dignitaires dañoo détourner alalu Sénégal. mais il faut que vous ne préciser ne. waaw bu conscience collective dans la conscience collective des pastéfiens. des pastéfiens. dans la conscience politique lu ñu tal moom usu yi muy wax ne day neexal fan si xam nga lu tax moo ko ci dugal aha moom moo ci dugal dans la conscience des pacifiens eram bi laa mënul supporter que l'ancien régime te wax na ko démb ci conférence ci ci mhm. ay déclaration am que am nañ ci ay preuves wax na ko am nañ ci lu leer ba nee na am na ñeent kilifa yu daw mhm. kenn ki mi ngi Canada ma wax lako fi fii mais tam foofu aussi. ki muy wax mi ngi Canada. kan lay waxal Mamour Diallo lay waxal. dedet Mamour Diallo est la au senegal mam bay ñang lay wax. Ah. le bëgg wax te génnewul turam. légui léegi lu mu lu mu wax si Mame Mbaye. Mame Mbaye est dans le cabinet du président de la République Macky Sall. Hmm. il est avec lui. mom lay liggéeyal. mom lay liggéeyal donc il n'est pas au candidat à au Canada prétexte wul sax. Hmm. ni da fay jangi comme ni ko ñenn di waxee mais mom sax bala mo wax ay waxu lijeenti mambay mu dem mais du moom moo newoon dossier mambay baa ngi ci ko table am. waaw tey gis nga benn journal bu titré ni hmm. rapport IGF jox nañ ko. waaw gis naa ko xaw ma lan jox nañ ko dig dig waaw. on verra donc ci ñeenti ñi dem. waaw ñeenti ñi kan kan kan la Addis. non dafa am ñuy nekk di joxe man bëgguma nekk. spéculation mais ñeenti ñi. waaw damaa jàpp ni c'est la délégation du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar nga ni ñeent ñi génn Sénégal. Mm. c' la délégation du président de la République parce que Sénégal kenn génn ko. Sénégal. en tout les anciens dignitaires. ils sont tous là dans ce pays. mais nag quand am na benn affaire boo xam ne gis naa ko. Hmm. Euh, euh, ci euh, fan yi tey diggante démb ak tey. Hmm. loo xam ne pour man tam erreur de communication la. Hmm. xam nga. Euh, n'est pas Aïssatou Diop Fall qui veut. oui xam nga courage doo ko am amul danga koy am wala nga ñàkk ko. wala nga ñàkk ko waaw. te mu sell mi lu tax euh, euh, kiiwam yi xuppam yi ak menaces yi di di jàll ci ñenn ñi ñu tàppet ko ba noppi du ñu wax parce que dafa leen il les connaît mooy li ma wax rek mooy Tyson ba muy ba muy daan ñoom ay ñoom Mor Fadam ak affaire je pense que daan na ko ñooñu. Mm, mm. pas yooyu nga xam ne fi la fekk. Mm. donc moom seul arme bi mu am. Hmm. moom mu sell mooy nappaate xuppaate ak menacer. Hmm. mais ñi dans ce pays mais nag quand am na benn affaire boo xam ne gis naa ko. Hmm. Euh, euh, ci euh, fan yi tey diggante démb ak tey. loo xam ne pour man tam erreur de communication xam nga n'est pas Aïssatou Diop Fall qui veut. xam nga courage doo ko am amul danga koy am wala nga wala nga ñàkk ko waaw. te mu sell mi lu tax mm, mm, euh, euh, euh, kiiwam mi, xuppam yi ak menaceam yi di di jàll ci ñenn ñi ñu tàppet ko ba noppi du ñu wax parce que dafa leen il les connaît mooy li ma wax rek mooy Tyson ba muy ba muy daan ñoom ay ñoom morfadam ak affaire je pense que daan na ko ñooñu mm, pas yooyu nga xam ne fi la fekk donc moom seul arme bi mu am moom mu sell mi mooy nappaate xuppaate ak menacé mais ñi muy menacé na ay tàppet lañ dëgg la parce que démb il a suffi hmm. mu wax rek gars yi commencé mu wax rek commencé. di bind di bind ku neen di yëgul naan ndaw ma maa ngi fi xoolal euh, ba pare tamit euh, euh, kii sama sœur bi Nour Faye na na na na na na yi muy jox waa yenn palaato yi xam nga gis nga addus. Hmm. man damaa neexula bëgg. dëgg la man mii. Hmm. xam naa dinaa dund ba dee. su ma ñi ma am chance ñu bëgg ma ñoo may bëgg heureusement ba utuma ko ma bëgg ko ma bañ parce que lu ma lu ma xalaat laay wax. je refuse d'être le réceptacle de la haine de certains et le refuge d'autres personnes. Tout à fait. Parce que démb mu mi nga xamné ne nappaate dong mooy àddinaam. Hmm. boo mu ne wax na day tribunal na pas déjà nous c'est même pas bon moi, suba dina n'a ne ñi mu napp groupuscule la. retour de bâton dina am de. boomerang mooy par force par force te bu subaa il va ravaler propos parce mm-hmm. que fii Sénégal la mm-hmm. moom ak lu mën a xew moo xam yàlla ñaata la ñaata temps la prévoir pour ñoom yi nekk fi dina fu mës a dina mës a nekk ancien mm-hmm. bu nekkee ancien nouveau yu ñëw dinañ ko teg lu metti moom ndax fii loo leb la lañ lay fay fi ñu toll nii cëpp-cëpp bi muy wax si ñeneen moom mi ngi na cëpp-cëpp bu baax ba xool fan lay mujjee mais dama a wax mooy. Hmm. la vie foog nga nga jox yàlla li mu moom. Hmm. Euh, li ma dàqarul ak euh, ñenn ñi mooy tàppat yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi noppi mooy tàppat yi nekkoon ci ancien régime. dëgg la dëgg la boobu ba léegi. dëgg la addus. Hmm. koo waxul dëgg wax fenn. boobu ba léegi. ñi ngi noppi. kii mu sell mii nga xam ne waxkat bu mag bi mooy le champion des waxkat. Mhm. du Sénégal moo mhm. dàq wax Sénégal wax rek lay mhm. def dafa wax a wax a wax a wax a wax a wax a a ba sikki ma mi nuroo ma ko wax nuroo ko wax lu ne yàq na leen ko fu mu fu mu fu mu bëggee euh, safal ay waxam daal ne tapet opposition tapet ak nouvelle opposition seen presse bi seen presse bi moom xam naa maay maay njiit la <laughs> man ak Bougane lay xëccale bu Bougane nekkee euh, euh, leader ba numéro un maay numéro deux bi waaw <laughs> fi nga ko déggee mu naan seen presse bi génnul ci man ak léegi te mom mom mom mi naan presse bi. mom leer nako ko bu ga amé xajul ci euh, ci poche kenn ba ñu ngi koy boot waaye moom misaal leer nako ne Aïssatou Diop Fall mii. Hmm. man man duma man kenn duma yabal. kenn sañuma wax lo kenn sañuma nang may wax lu may wax lu ma saf lay wax. dëgg gew ma ñeentale mom ñu mi nap man bokuma ci ñiko tapat man tàppatuma ko. da moom hmm. xam na ne tàppatuma ndax ba ma dalay wax ci mom hmm. boobu wax ci moom yombut te boob ba tey maa ngi ba mu xewee ba tey maa ngi ci kawam te ma ko yéen a wàcc mm. ba mu keroog mu ñibbi sa kër góor gi wala moom rek dem mu dem yoof ma dem yoof dëgg la <laughs> ñu tëdd mu tëdd mm-hmm. waaye moom soobee kàttanu yàlla tant que maa ngi sama bakkan bii mm. moom duma ko wàcc kon ñii fi nekkoon ñëpp tous les jours que jëfee yéen ngeen daw abandonné le terrain nekk ay buqat mu sell mii ñëw ngeen xoggalu ñëpp ñëpp daw dem mu génn rek annoncé poursuite cette semaine rek. ne ne ne ba pare teg ci ne dafa am ñu daw rek. dafa xool xool teg ci rek ne nappaate te te moom fit danaan du carrément xam nga moo li mu sell mii moom moo gën a ñàkk fit ñëpp. <laughs> amul fit day am amul fit xam nga au royaume euh, euh, des aveugles. Hmm. tubaab bee ko wax le borgne est roi. Hmm. moom ñi muy napp mooy. Euh, sur dix-huit millions et de sénégalais. tout à cinq cent mille tapet yi nekk ci réew mi cinq cent mille tapet yooyu da la mun napp. Mm-hmm. waaye mm-hmm. démb moom bu doon am mu sell mi dëggantaan fit gi muy wootee. Mm-hmm. nit ñi ci moom day taxaw. ne diw daw na bërëb sàngam la daw. <laughs> diw mais daw na Mame Mbaye Niang a fui. il est Canada. ne diw tel autre a fui mais def ko. dafa wax sànni hmm. waaye bu waxe sanni tudul tur tapet yu làqutu won yep ku nek taxaw du wote <laughs> man ni demb rek bëgg wax bëgg wax xoola man demb rek bu ñu pare leg ma wat la appel ba jot <laughs> demb rek man gis naa ba mu te man xam nga wax na telephone tout tànk bay kay yor hmm. ba mu ñibbisi gis naa mu rejeter presque ay set set appel hmm. ancien dignitaire moo tax am na si ñoo xam ne moom la du ko gis naa Ndour Faye affiché leen ne dañuy dem ci ci Ndour Faye tey te njëkkee nañ ci man ñu bëgg a dem ñoom ñëpp naan maa ngi nii dawuma waaye tàppat ngeen Ndour fay moo war a bañ loolu hmm. tàppat yoo xamante ne waxuñu woon démb hmm. daw nañu làqatu nekk ci réew mii hmm. làqatu nëbbatu sawaay génn mu que il faut ngeen am dignité man gis nga aadama Fall ñaar laay nawee ci nit li ci mm, mm. mooy courage ak dignité. tout booy dee ci àll na la gaynde rey. Mm. te gaynde bi tamit moo lëpp doole. waaye bu lay rey tamit nañu moom gaynde yow bu la rey ba nga dee gaynde bi ñu ñëw di ko gis nañ gis si moom ay jam-jam. Mm-hmm. nañ gis ne gaynde bi nañ gis ne tout est mm-hmm. mais Dieu est avec les mm-hmm. waaye nekk ci mim réew mi tapet bukkat tapet Ousmane Sonko ba fu mu jógee këlamtu koo leen ngeen di daw di xëm démb ñu bëree xëm ku ne ñu woote waaw allo sister am na kenn boo xam ne moom vocal la yoon yónnee moom jël mu vocal ma waaw sister allo def ah ça va bu dee da am plateau là <laughs> ah bu dee da am plateau ce qui bon euh, juste preneur hein mais il faut qu'on répète neen dafa am fit noonu de mais il faut qu'on répète à ce gosse là soo ko lay waxal de <laughs> te man la koy wax xam nga yabaate weesuwul yaa ngi war a waxaw Sonko ay sut jofaar ngeen di ko fa gaal xam nga kooku yabaate weesuwul loolu su ma ko tontoo yaa ko tontu ah non mais il faut que mais mais écoute non je vois que temps yi ci Aba ne neen neen dafa may taggaale noonu ngi may neexal noonu non ci Aba un travail formidable mais ce gosse ça il faut lui répondre hmm. non xoolal écoute si tu es plateau là euh, d'ici le week-end je suis preneur ah il faut que répondre vieux laa ko def ba mu xam ne liir naa ko ignoré maamam. <laughs> ay tamit man rek ay man xam nga dama am fulla nga man dama am fulla. man mi une pauvre femme sans défense. Hmm. nga xam ne matuma un un mètre trente laay laay mesuré. Hmm. sama cent vingt la woon maa ngi ci soixante quinze kilos. Hmm. mu sell ma largement. yor état. di ko om ngeen om. mais pour que bu ngeen tàppate seen moromu om. mais loolu mooy sama sama sunu maam xaar may xam nga daal di xam nga ci ne lamb jaa ji bu góor ñi sigul bëri bu góor bu góor ñi bëriw jigéen yaa koy moome dëgg la yéen Ousmane Sonko di seen ngeen di om di om ngeen tappet ko ba saa bu taxawee ci micro yu xuuxaleen sans défense mm. di di bu boot Nour Faye moo war a éviter di jël tappet affaire <laughs> mu seetlu mi génn dem napp leen rek ñuy wër plateau fi ñu doon nii semaine bi yëpp ñoo nar a fees ci plateau yi ku nekk di wane maa ngi nii ku nekk di wane xoolal ba pare di jéem victimiser wu pour pour bu subaa bu ñu la wooyee nga taxaw naa ah victimiser xam nga nag tout le monde n'est pas Lat Diop quand même waaw tout le monde n'est pas moo neex a faral dimanche waaw tout le monde n'est pas Lat Diop moo neex a faral dimanche waaw ah. parce que nit ki da ngay cohérent ci sa démarche yow moo dem wax naa fi Abou Diallo nga ma dégg dama ne Abou Diallo hmm, fii hmm.